Bamba yow yaa yor euh, wàllum communication parti And Guorgui bu maître Moussa Diop euh, ci presse bi xëy tey lan nga ci ban commentaire nga ci def ñu dugg suñu tam nag très très rapidement waaw Boubacar euh, comme ni may wax nag biraam sama biraam fi sama natango bi daanelee foofu lay ñëwee mooy ci problème wu dépôt de candidature yi au niveau du conseil constitutionnel parce que tey bu ma jëlee ci cadre Moussa Diop rek yaakaar naa du ma ci du ci réer te je pense que notre doyen ici présent euh, analyste politique la te il a fait vraiment de très belles analyses yoo xam ne ku ko dégg di nga xam ne kiy wax du n'importe qui donc su ma ko dégloo déglu sama naataangoo déglu aussi ñi nga xamante ne ñoom la ñuy jox nopp ci biti toutes les pensées se tournent vers le la le conseil constitutionnel kon foofu li ñu leen di ñaan mooy que ni askan wi ñu ngi déposé mais ñi ngi am benn tiitaange boo xamante ni au niveau du conseil constitutionnel ñi ngi déposé mais est-ce que dina jaar yoon. Hmm. kon foofu dañuy ñaan conseil constitutionnel kii est composé de sages parce que bu ñu nee sage c'est pas n'importe qui te place bi nga toog kenn mënu la fa génne askan bi jox la bopp. nit ñi jox la bopp ba pare gëm la yaakaar la kon foofu transparence rek nga fa war a woote ku mu neex nga déposer nekk candidat parce que gis nga ñi nga xamante ni ñoom ñoo ngënk nguur gi tey di bëgg a faagaagal ñi nekk opposition bi bu ñu fàttaliko ci ginnaaw bu ñu leen faagaagaloon du ñu jàll te kon tey jàll nañu dañu war di fàttaliku loolu bu fekkente ni problème de parenage parenage si je vois que c'est une très bonne chose c'est une parce que loolu mooy tax ñu mën a xam qui est capable d'aller se présenter ou qui n'est pas kii qui est incapable donc bu ñu demee ba nga xam ne rek la jaar nañ respecter suñu ay chart dafa war a basé wu sur des critères juridiques que sur des critères juridiques mm-hmm. tey Moussa Diop bu amul dara luñ ko mën a baare luñ ko amul dara luñ koy baareel pour mu déposer sa candidature mm-hmm. parce que amul lu mu def tey jii lu ñu mën a teg ci table bi ne ça c'est des preuves palpables bi nga xamante ni daf koy jàpp ne coupable il est toujours présumé innocent waa est-ce que quelqu'un boo xamante ni il avait déjà présenté sa candidature déclaré sa candidature au euh, à la présidentielle kooku est-ce que tey jii war nañ ko jàpp jël tëj ci kaso bi ak chef d'accusation bu ñu ko mën a tegal sa place n'est pas en prison moom génn na wax il a fait son devoir parce qu'il a pensé aux ressources naturelles lan la ñu wax ci ressources naturelles sa appartient au peuple ñëw na wax ak askan wi comme un bon citoyen ni mu ko war a defee donc kooku il a rempli ses devoirs donc ñi nga xam ne ñoom lañu ñu ñoom ñoo féeti ci nguur ci nguur gi li ñu waroon def mooy comme à l'accoutumée def benn conférence de presse ñoom it wax ne nii ak nii mais ba léegi kenn xamul fan la dëgg féete kon bu ñuy jox dëgg ñun dañ ne ah, Kédé la ñu dégg moom moo wax parce que il a révélé des il a fait des révélations yenn askan wi ci lu bëri askan wi tey fi ne Sénégal man mii fi laa juddoo yaroo fi mosuma xalaat problème mu jamaa mais tey ça nous pousse à aller def ay investigation ça nous pousse à aller même ay contrat yoo xamante ni c'était entre nguur gi ak yeneen même buñ ko xamul woon dañuy dem di ci kii loolu c'est déjà en pas kon ku ci mel ni le président Moussa Diop bu ñu ko téewee dañ ko ci ay naka saxandan mm-hmm. ñëpp wax nañ ko ñëpp xam nañ ko amul benn dañ ko téye arbitrairement parce que jusqu'à maintenant duñ na moo def duñ na deful parce que mi ngi ci loxo yoon mais ñoom ñi nga xam ne ñoo ko téye dañu war a génn wax ci askan wi ne leen kii kat lii lañ ko téyewee lii moo tax lii ak di génn ay preuve par rapport à accusation yi ñu koy def kon ku mel ni président Moussa Diop bu nga xamante ni tey def nañ suñu ay parrainage déposé 48 548 parrains sans doublant en plus kon kooku yaakaar na 48 000 parrain euh, parrainage yi euh,

sëmbaxloo bi def segg ngeen affaire yi mm-hmm. parce que dañu am ay équipe informaticienne yoo ay informaticiens yu nekk ci biir ñi nga xamante ni ñoom lañ ko dénkoon parrainage tam ñu nekk ñu xarañ liggéey ci nuit et jour 24 heures sur 24 te dinaa la xamal benn affaire gis nga bi ñu teewee Moussa Diop lii ñu ñëw si suñu permanence ba di ko jàppale mm. parce que kon ñooñu dem nañ ba saytu ko ba gën ko jox bopp kon ñun déposé nañ suñu suñu dossier yépp complet na gisuma kooku lu luñ ko war a mën a téewee léegi nag li ñuy ñaan mooy que ni ñëpp ñu déposé naam bu ñuy dem ci compétition ñëpp mënuñu gagné. Mm-hmm. mais bu ñu tee kenn parce que politique ay affaire de politique la. Mm-hmm. nañ ko jaarale ci transparence dañ ne on se dit un démocrate donc dañu war a doxal dëgg doxal yoon ba nga xamante ni tey jii képp ku dégg Sénégal dina xam ne démocratie bi ñun ñuy xeex opposition bi ko xeex mi ngi fi woon ndax ñoom ñi fi toog tey jii loolu lañ doon xeex. Mm-hmm. kon tey loolu la ñuy ñaan daal nañu jàpp conseil constitutionnel aussi ñi ngi leen di bàyyi xel bu baax te ñi ngi leen di on les a à l'œil di leen suivre yaa am ci ñoom yaakaar tamit am ci ñoom yaakaar mu bañ a am benn parparloo bi ñu jaaree lépp dans la transparence